cas bi nga xamee ni motu bi doon na ko waxtaanee si kër gay di suba teel xam nañ ni kii di Sidi Diop gannaaw bu mu tëggee di di Zénith euh, macha allah mu daal di am benn réussite totale Sénégal yëpp di ko félicité bu baax a baax parce que tamit Sénégal yëpp mu leen tuddee fu mu toll nii bébé Zénith liggéey bu am solo mu def ko fa. li woon ndox est-ce que dina fees ou yàlla def mu daal fees est-ce que dina réussir ou pas mu réussir spectacle 100 pour cent lumière son lépp mais. dafa am loo xam ne Sénégal yu bëri moo doon xaar muy Sidy Diop kañ lañ ñibbisi pour bu ñibbisee presse bi yëpp dem seeti ko fekk ji ko posé question laaj ko presse laaj ko maanaam Zénith bi mu demee mais dañ toog ba saag rek Sidy Diop ñëw ak ay balisam kenn jégul kenn timul moi je si suis posé la question mais pourquoi. ñu ngi yollee ko. ñu ngi yolle voilà mais après Ousse moom sama xarit la lu ma xam da ngay xam Ousse ñëw ne ma mais. Sidy Diop buy ñëw la ko war a jël si aéroport moi je me suis posé la question ne ko oust Sidy Diop dégg naa ñëpp si na moo loolu kañ la. si na bu yàgg. voilà merci beaucoup. dëgg boobu si bu yàgg na ba voyagé waat fii. mën a jógee Bercy Zénith du moins yaa na dem Bercy allah. amiin hmm. si dem mariage Zeyna tëboon naa espace boobu. Hmm. ma xaar peut bu ñëwee am na yeneen projet yu nekk si biir. am na leneen si Diop ñu war def Sidy Diop na tekk je me suis posé la question pourquoi ce tekk là. Hmm. pourquoi ce silence. bon maintenant woon dañuy dégg ay rumeurs voilà son des rumeurs que si Diop ak nga xam ne nii mooy ménagère am dafa am ay quelques problèmes yu nga xam moo am moo tax affaire na tekk moi li ñuy waxtaane mooy est-ce que ñaar yooyu war nañ am problème. Ah. benn point d'interrogation lu pourquoi ma posé question mooy. dañoo yàgg liggéey ba yàgg gis ñoom ñaar seen relation nu mel ak Makhtar Diop Soubatel nu muy jàppale Sidy Diop Sidy Diop nu muy gërgóorlu maanaam si liggéeyam mais non première question bi nga xam ne mu lay posé na naa est-ce que musique sénégalaise toll na foo xam ne wala soxal nañ bu fekkee li ñu naan loolu am na wala du am dëgg la wala pas fii ak deux heures temps Sidy Diop dina si wax lu leer parce que mu ngi benn conférence de presse est-ce que bu amee. Hmm. avantage la si musique sénégalaise mais rawatina si nga xam ni moom mooy Sidy Diop. sànq ci suuf lan laa la wax bi nga ma waxee loolu fàtte nga ko. fàtte naa dama ne la kon de bi tama dina ko ëpp buum ndax Matar Diop suba teel dafa joué lu bare bare bare ci carrière am Matar mooy Sidi Matar Diop. Mm-hmm. mooy Sidi Diop. xam nga gis nañ fi Baye Sall ñeneen ak ñeneen ñëw fii mais toujours Matar Diop suba teel dafa resté ak moom est-ce que kon bu fekkee loolu am na diggante bi war a defarwaat boobu mooy première bi waaw. <laughs> waaw boobu première. d'accord que nag <coughs> si di ndaanaan la artiste gënu koo mën a way wala boo lim ñi mën a way boo ne benn ñaareel bi dina doon moom parce que mën na te fi muy wayee high level la ku dul ndaanaan doo fa yegg. mais ba léegi da gis ni dafa am ay tekkatal yu yu yu doy waar yu am ci kawam Sidy Diop à chaque fois xale la mais à chaque fois da gis coow di ñëw ci kawam te loolu do donte moom artiste bi ñoo ànd parce que yow yaa choisir siiw comme xam nga et siiw c'est pas donné waaye lii dalandoo ci kawam dafa bari bu jógee ci The Best tey xuloog diw jóge ci kee xuloog kee kee jóge ci moom dem feneen ak feneen xam nga lu baree bari premièrement Ndeye Ndiaye Banda yaa ñeneen ak ñeneen jóge ci moom xam nga mu dem ba kenn deseetu ko ku dul Matar Diop suba teel peut-être am na ñeneen ñu ñëw mais xam nga dalay leer ni ñi ñi ñi fekkee woon ba mbir yi di commencer ñi fekkee woon ba muy metti du méngoog ñi nga xamante ni dañoo jekki-jekki rek ñëw rawatina ñu fekkee mu mu diggu dóom neexut torop torop waaye dafa dañoo fekk mu diggu dóom mu tane nga desek Matar Diop Soubatel donc coow bu fa amee ah moom artiste bi war naa seetaat boppam déjà confirmé wuñu nag dañ ne bu dee am na moom artiste bi war na seetaat boppam. parce que dañoo analysé depuis mu ñëw ba léegi dañuy teg teg ah, effectivement effectivement ce anormal dafa anormal parce que euh, ba ngay dem Zénith yow ñëpp a ko yëg nga dem dugg ci kër artiste yëpp ce qui normal d'ailleurs dugg ci kër artiste yëpp tàggoo dugg ci média yi tàggoo. ci série yeeg ci fépp ñëpp xam na yaa ngi dem seen booy ñëw rawatina nga jëlee fa ndam ma moomoo xam nga bu fekkoon sax da nga doon ñëw euh, fële ne nga jëlee fa defet mën nga yoot amul problème mën nga yoon yolleeku mais nga ñëw ak ndam diri say valise yow kese dara topp la yaa problème moomoo lan mooy problème bi nag ndax li ñuy ruuma ndaat ci suuf moo nekk dëgg wala dafa am beneen problème bu làkkatu ci ginnaaw loolu et lan moo war a indi problème bi lan moo war a indi problème bi parce que bu fekkee Zénith fees ñun gis nañu ni fees na. bu fekkee réussite ngeen doon ñaan gis nañ ni réussite am na. donc lan moo war a indi problème bi ba pare li ci topp mooy moomoo comme li ma ko waxee tantôt li ma ko waxee sànq muy euh, ñi jóge ci moom dañoo bari ñi mu àndal ñëpp te ku jóge ci moom malheureusement. Euh, comme ni ko Abdou Salim waxee peut-être mën nañoo jël exemple ci Diarra peut-être euh, li doon tàgg Bass Thioung mais dañuy gis la plupart képp koo xamante ni doon nga ànd ak nit ba àndatu leen rek danga nga koy yàq keteme ñi fa jóge ñëpp benn wax bi lañ doon wax diw nangam diw nii la mel diw nii la mel comprendre nga donc tey jii suñu jekkee jekki dégg benn bëgg région de kër gu mag rek. waaw je sais pas je sais pas je sais pas moom mais mais wax lu am solo ku ñëpp tif li nga tooy nga lóor lóor mm-hmm. da ngay lóor magum tooy dégg nga ma donc moo tax ma war a xam moo tax ma ne euh, peut-être bu fekkee problème am na moom artiste bi na xoolaat boppam xool jëfinam xool artistiquement artistiquement moom lan la war a def exactement ci li nga xamante ni moom mooy carrière musicale parce que c'est très très important nga am staff bu dëgër boo xamante ni tey jii non seulement da nga yàgg xoolu Youssou Ndour lan moo ko def star planétaire mm-hmm. lan moo ko def parce que ñi mu doon àndal démb ak bërki démb ñoom la continuer bi àndal lan moo def Viviane reine de la musique africaine parce que ñi mu doon àndal démb ak bërki démb ñoom lay àndal comprendre nga donc Viviane ba léegi Bernada Arame doon Jolof euh, la reine du euh, du Jolof Band mais boo déggee ba léegi li muy wax mooy Youssou Ndour à chaque fois da dégg muy mu muy Mbacke Dioum Youssou Ndour ñooñu ñoom ñooy reen bi nga xamante ni ñu moom moo ko ñoom ñoo ko ko def comprendre nga donc na na na xoolaat bu baax boppam xoolaat euh, estafam jàpp ci lu lu dëgër lu concret parce que mën na way il a du talent il a la voix merci beaucoup Ndena alors Abdou Saliou hmm? divorce moom bu amee moom musiba naa laay la baaxul si musique Sénégal baaxul naa seen euh. diggante et pourquoi tekk tekkaare yow depuis si Diop bu mu ñëwee Zénith ba kii dafa wax lu am solo te man euh, laaj naa ko ko bi ñuy def euh, bi muy waaj yoonu Bercy yoonu Zénith. voilà ma ne ko Sidi lan moo waral divorce yi di am sa digganteeg say ñoñ. ñi nga mm. xamante ni ñoo la jege. est-ce que du Sidi dafa mënul ay nitam. Mm. mais loolu question la boo xamante ni bu suba ba tey bu ma gisante waatee moom dinaa ko laaj. Mm-hmm. ça me nga nekk xale bu ndaw sunu borom dimbali la nga am talent lool macha allah. mën a way am voix. billaahi mën a way. barke Seydina Mohamed Sidi yéen Sidi. Mm. Matar mi ko yore sax xamul ni Sidi mën naa way. <laughs> Sidi lu leer laa leen wax. <laughs> loolu dafa euh, gis nga ci albumu Sidi bi sax nit mënu cee xam ndax Sidi mën naa way. Mm-hmm. Sidi na way voix keseem. ay tëgg ak mélodie ak mhm. affaire yooyu noonu nga déglu ko suñu borom dafa ko dimbali dafa mën a way. Mhm, macha allah. moom moo nag réew réew mi ñu nekk muy Sénégal. Mhm. ah euh, gën ñoo xam musique néew ma néew ma xa dañ koo xam de mais sunu borom am na lu mu ñu ci may. parce que ma nit day bind son léegi clip ko génneew son bi ma ko dégloo trente minutes. wala bala ma faa àgg mu mënaat son bi jàpp ko këru. erreur erreur bu ci am ma wax la ko moo tax ko keroog waa Seck mu defee son bi bokk ñi nga njëkk a sinap. non Aïda Samb Aïda Samb bee jiitu siit dafa mën suñu boroom dimbali ko mu nekk xale. man li may demander chaque jour mooy Sidi est-ce que mën na ay nitam parce que bu mënoon ay nitam ñiy jóge ci keppaaram lu ñu fa jóge te ñi fa jóge ñépp surtout bu fekkee waxuñu ko ci kaw mm. ci suuf loolu la ñuy wax mënul ay nitam mm-hmm. nee naa la réew mi li fi. gars yi mais est ce que nekkul étiquette bu ñu ko bëgg a tegal non waa déglu dem parce que des fois tamit am ñoo xam ne maanaam dem nañ. c'est juste que parce que dañ bëggoon dem si beneen camp waa léegi déglu waaw léegi waaw léegi déglul bu ñu bëggee dem ci beneen camp bi beneen camp bi est-ce que mës ngaa gis nit génn fa ne waale mënul mënul mënul leen ay. surtout xam nga ni xam nga xam nga affaire yi affaire yi il faut nga teg ko ci balance nga mm-hmm. peese ko. man beneen camp ak loo leen mënti waxal. mësumaa gis nit génn ah ne sunu njiit bi kat mënul ay nitam wala ñu génn di xalab waali mm. li bu amee sa raar mm. mais Sidi da ngay xool ñi fa jógee ñëpp bu ñu ko waxul ci kaw ak bu ñu wax ñu wax ko ci kaw ak ñu wax ci suuf dañ la koy wax da ngay tasanteeg nit mu wax la ko. Mm. mu leer na ni y' a problème est-ce que xam nga ni bi ñu jógee bi Bercy bi bi Zénith jeexee ci ngoon gi ci ngoon déglu ma li ma lay wax nii rasul ci ngoon mm-hmm. barki Seydina Mohamed laa yëg ni am nañu problème moom Matar. de source sûre. bi mu jógee hmm. Zénith ci ngoon gi billaahi nee naa la réew mi lu fiy dox bu ma bokkul ci dix personnes yu koy njëkk a yëg bokk naa ci cinq yi barki Sëriñ Bamba ci ngoon gi lañ ma wax ni moo Matar dañoo am problème man dama soog boo nee ma dañoo am problème problème mu lan ñu ni ma problème mu xaalis attends attends attends. mais tout ça non man dama dama lay non dama lay wax dama lay wax ki ma ki ma. ki non je sais je sais je euh, xam naa la. waaw ah, dama lay wax. man xam naa la ñu ni ma ñu ni ma. à ne que mën nañ am c'est choquant d'entendre d'entendre ça <coughs> parce que tey jii Matar Diop suba teel Sidi Diop am nañ koo dem d'accord moo na am affaire question d'organisation question de leneen rek leneen mais pas <coughs> pas question d'argent ça. waaw léegi déglu. déglul déglul waaw déglul déglul waaw déglul ñu ma ne ma ne waa problème mu lan la mu ni ma problème mu xaalis la ok moo tax seen diggante ñoom ñaar am ay jafe-jafe mais ñi nga xamante ni dañoo nekk ci ginnaaw Sidi nekk ci ginnaaw Matar ñoom dañuy defar man ñi ma ciy dégganteel koo ci waxtaanal danaan la Sidi mi ngi ci yoon Sidi mi ngi nekk nii bi mu jógee bi mu jógee bi mu jógee Zénith ñëw na ci mariage bi demaat na fi gisante na fekk Fally Ipupa waxtaan nañu ñi ngi waaj ay truc international mais boobu ba léegi est-ce que da nga gis Sidi euh, ci yim daan def ak yooyu noonu nga gis. ci album bi est-ce que album bi album bi dañ koy stand by. Mhm. ñun ay nit lañu. defuñu promotion aussi. man. avant ñuy dem biñ ñu toogee waxtaan bu buñ demee Zénith ba ñëw. Uh-huh. dañuy def promo album bi. Uh-huh. Sidi. Uh-huh. Astar son boobu kilim nañ ko ba pare. effectivement moo tax génnagul. Uh. Sidi bi mu jugee Zénith waroon def tour télé yi. Uh. lan la fi def est-ce que du confrontation la confrontation la fi def ak Bijou Ngoné je pense. Mm-hmm. surtout avant. ah avant la je pense. avant xaw ma après. avant avant après la. après la non après la mais moment yi mu ko defee moo tombé ak mariage Viviane bi looloo ko suul. waaw gis nga. man man man man man point d'interrogation yi muy posé ba léegi mooy. Sidi bu fekkee ne li nit di wax ci moom am na. Mm-hmm. man de wax dëgg yàlla taalibe laa gis ci moom. parce que yaakaar naa ñaari yoon lañ gisante ñaari yoon lañ gisante man ak moom te ñaari yoon yi ñu gisante yëpp lu may wax yow saay saay nga. saay saay nga <laughs> wax na dëgg saay ah, mais li sama problème mooy nga nekk xale bu ndaw suñu borom am lu mu def ci yow buñ ne Youssou Ndour ne Waly yaa ngi gis bu ne Youssou Ndour Waly la wax ne Sidi Diop mm-hmm. te pourtant dàqu ta way ñeneen ñi. Pape Diouf leen dàq way ñoom ñëpp mais duñ ko tudd est-ce que yaa ngi bàyyi xel li ma la wax Pape Diouf leen dàq way ñoom ñëpp mais duñ ko tudd parce que suñu borom moo tànn ni musique sénégalaise ñett ñi la ñuy tudd par force ala kulli xaal. Mm-hmm. te Pape Diouf moo leen dàq way. Youssou Ndour la ñuy wax. Mm-hmm. Waly Sidi Diop nga xamante ni kon am na ñaanu way jur. Mm-hmm. mais lan moo ko manqué. lan mooy problème c'est quoi c'est lan mooy problème mu Sidi. nit ku mu àndal tey. wallaahi bu subaa nga jóge fa. Mm-hmm. te ñi la ciy wax ñëpp dañ naan la Sidi mënul nitam. Mm. d'accord. y a problème. d'accord. mais bu fekkee ni liñ source bi ma bi ñu ma jox. Mm-hmm. ne ma moom Matar problème mu xaalis ak am bu fekkee dëgg la Sidi day nelaw Matar jóob day nelaw. Mm. te Matar te Matar dafa nekk nit koo xamante ni li muy def ci doomu aadama yi ci li nit ñi yëg ak lu yëgul man góob ma ne dinañ am problème xaalis. waaw moo tax. waaw sànq je me suis la question de tout sauf euh, affaire de problème xaalis. parce que gëm naa ni euh, Matar Diop ak suba Matar Diop suba teel ak si Sidi Diop àndewuñ affaire de euh, question de xaalis alors Ousse. Mhm. yow damaa yàgg wax maanaam yoo xam ne dama koy gis même fekkee des fois dama si am gàcce sax. parce que loolu. ci dëkk ñoom dañ lay wax nga bañ. ñoom ñoom am dëgg sama kaw. danga ni avant Sidy Diop dem nga Sidy Diop dafa war a dem toj ko bu ko tojee ñibbi si bu ñibbi si ñun journaliste yi ñoo war a dem aéroport ñëw desi ko te pourtant gars yi loolu lañu programmé woon. Hmm. mais après tekkaare boobu ñu gis moom lañ fi toog waxtaanee ko woon parce que il fallait que des fois nga bàyyi ba lépp dal. Hmm. ba nga am si ay firnde yu leer leer nañ. Hmm. nga dowaat di si waxtaanee. tout sauf divorce entre Sidy Diop ak ki nga xam ne Makhtar Diop Soubatel. pourquoi. parce que baaxul ci musique sénégalaise baaxul ci Sidy Diop. ci sa xalaat baaxul ci Makhtar Diop suba teel. ci sa que mu nekkoon benn contrat bi nga xamee ni parce que tamit bu ñu fàttalikoo Sidy Diop bu muy signé contrat ak Makhtar Diop suba teel je crois que ça fait cinq ans su ma jumulee. Mhm. Euh, ëpp na ko sax euh, Makhtar Diop suba ni ko maa yow ba Zénith est-ce que. contrat bi il l'a fait il l'a fait. il l'a fait. Mhm. est-ce que fa la war a man parce que mënuma d'accord wala mënuma gëm bokk. Abou Saly comme ko waxee problème bi dans genre peut-être contrat bu jeexa wala leneen leneen. amoon na doon problème xaalis kay. waaw. seytaane bànneex bakkan dunyaa ku leen fetal rek daane nga noonu yu bon ya sëñ Moussa Ka ko wax te xaalis doon na nattu nit boo xamante ni 1000 francs sax mun na yàq nit ci discussion. Mhm. yu soof. wécci ma wécciwu ma la sama lii fa nga ko tegoon ci xaalis xaalis moo soof moo tax man luñ ne indi na ko duma bett moom xaalis waaye man fi may waxee ci benn côté mooy man am na lu ma xam ci Matar Diop Soubaté ci social. Mm-hmm. Hmm. Matar Diop Soubaté ma am lu ma xam ci moom ci social ak ak ak bëgg nit kuy góor góor mm-hmm. xam naa ko ci jëmmam ci wax dëgg sii di nag leneen lu ma la wax ci moom damay fen man moom. xam na ma baax la. xam man xam naa ko nga xam ni euh, bu gisee nit day def ni ma comme boppam. Mhm. man gisante ne gisante nañ ay yoon. gisante nañ ay yoon bi ñuy mujjee gisante. su ma juumul am na ko ma ko doon jéem a présenté ci mamam ya bu almadi mu na ko kan noo Noreyni mi kii dama ko présenté xam naa ko baax maa ngi lay suivre mm-hmm. bu baax a baax a baax yàlla na yàlla doolu jàmm ñaanal ma ma ñaanal mm-hmm. yàlla def tawféex mbiru liggéey la nag xam nga yéen da war a dem ci conférence de presse bi mm-hmm. moo tax du leen bëgg a téye xëy na itamit buñ fa àggee jàmm lii dina ci tontu. <laughs> waaw xëy na dina ci indi lu leer waaye nag ànd moom surtout ma ànd gor ak su nawleem ànd rek lañ war a def xaw ma nag à cent pour cent parce que am na yoo xamante ni Sénégal moom moo ñi xam waxuñu <laughs> waaw ñu wax ñu xam ñoom wax <laughs> xam <laughs> ñu xam dëgg. nekk ci tiktok bi di fen yëpp xam. Mhm. kii mel ni mbaam xuux ak kii mel ni escalette dañuy fen xamuñu xam nga lu am ma ñàpp makat yoon yónnee leen ay photo taat wala taatu jàmbur ci loolu lañuy ñuy basé toog di ci wax la mais xoolal walla moom xamul dara xamuñ tus yëgul ñi dëkk bi di doxee moom moo cheikhul xaddimal Moustapha borom màggal gi laa lay waatal ñun xam neen loo xamante ni xam-xam waxuma la waxuma la ay jéem lu palpable da ngay lamb daj xool gis te dañuy kóol nekk ci li ñu war a nekk géem li war a géem ci civilisation te te damm coow du jipp Sidi dama koy conseil man bu dee mu may dégg bu baax dama koy conseil xale la. Mhm. Sidi boo toogee naan Sidi mën naa mu mënut yow léegi nga mën. Mhm. mën naa mu mënut léegi nga mën Sidi jàmbaar la ku koy wax dof nga. Mhm. ndax mënu fi fekk ay baayam ñëw ba taxaw ci kanam. nga naan jàmbaar loolu ay wax yi xasaw xasaw. man Sénégal jàpp naa ne moo fi dàq woy. waaw ngi dégg. lu nekk nekk nekk nekk nekk dafa am ayib na retourné waat mm-hmm. na toogaat ay àndi dimbi ay àndi dimbam na leen bàyyi xel mm-hmm. bu baax moomu ki la yéene ba ngay jug di def ci yow dix mille boo amee vingt mu demee neneen rek ak dafa sew mm-hmm. te dafa gaaw connaissance de cause daa lay wax mm-hmm. ak daa sew daa gaaw mm-hmm. eh, maanaam yokk nag ba yëg ko day am Sidi démb bu mënta doon Sidi tey de non non non yi pour ñuy comprendre Sidi mënatul toog di naan ataaya ak ñenn ñi. Mm-hmm. mënatul nekk di fréquenter ñenn non loolu mënatul na yaaram loolu moom yéen a ko ci comprendre itamit ndax mba woon daa woon ne. ndax zaahiran wa baatinan tawafaqa mu ngi ci alxuraan sax ñu xamal ñu ko ba mu leer kon loolu mënatul ne mais ñu maanaam ci conseil yaaram gën a jege gën a yeey moom la arab naan al aqrabu awla faaw rek loolu mu koy bàyyi xel baax a baax a baax a baax a te maanaam leader da ngay nooy leader da ngay nooy nepp ba mel ni xaal leader da ngay nooy ba mu xoolal leader da ngay mën da ngay mën cu mën caa. man man liggéey da maanaam leader da ngay bëri feem. Mhm. leader leader da ngay fexe ñu lay séntu west nga ñëw nga nga nga nga génnee sud. Mhm. leader da ngay mën yooyu. waaw leader boo mënee yooyu rek da ngay def défilé en tout cas li ngeen ci bëgg xam dëgg xam naa fu mu ne nii léegi ngeen wàcc <laughs> pour jubal grand théâtre xeetu moom ak yàlla ab saal bu ñu jàkkaarloo moom dinañ ko ko <laughs> waaw ñu ngi koy ñaanal. Mhm. yàlla na yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla taxaw ndax nag ñun am na lu ñuy apporter te yëg neen ko macha allah wax dëgg euh, nooree wax nga lu am solo pour pour fàttali rek ah, damay damay fàttali juste rek euh, rappel laay def rappel rek laay def voilà euh, parce que parce que nooree ni dafa wax lu am solo mais lii nii Ndeye Gueye mosoon na wax lu mel nii ah waaw Ndeye Gueye bu papa booy jinne mhm. fecckat ex danseuse mhm. Euh, jour boobu su ma juumul dafa amoon problème ak Sidi Diop parce que nee na daf koy woo du ko jël mu ne ko gestul say nitu démb parce que yow bokk naa ci ñi la def li nga doon te booba Omaro jugee gu fa nday ñaay bànn yaa jugee gu fa njàm booba yii xew xew xewagul. kon loolu rap c'était juste pour rappeler les gens que ni Mbaye Gueye moo njëkk a wax moo njëkk a ñaaxee loolu Sidi Diop. moo ngi noonu cadre yi daal c'est juste benn constat bi nga xam ne defoon nañ ko. Mhm. Euh, peut-être tey si ngoon incha allah Sidi Diop moom dina si tontu dina si yàbbi demee tamit dina ñëw gën ko leeral xam ñoom ñaar la moo seen diggante alors mbokk yi tax na di ñu ngi jaajëfee bu baax a baax euh, bi dafa am loolu jox ci takk boobu nu tudd ngeen ni nañ ko bàyyi ba suba. c' est bu ko bàyyee Tatira ah? Tatira Sow. man damaa xam man damaa xam du ma du ma TikTok. baax na alors moo ngi noonu mbokk internet yi ñu leen jaajëf ah, kii la kii xam naa. kii la. kii du actrice. ah jeune oh, voilà ah la tax na bi leen boole ko ak kii nii ak mu kii. il est magnifique. xoolal bi ak seen balaa. barke yaa ëpp doole bu ma génnee jox la 5000 bi ma fi dee séddee. waaw kii. ok barke Serigne Bamba bu fekkee nii du ma jaay. Mm. bu seen kër de jàpp si rek. sama sama yóbbante bu ko jotul yéen waa Télé Sénégal Racine laay ni ko amal problème xolal ma lii. lenn de xam naa ko moom. dina ko jot wallaahi azim. lu lu lu mu rafet baax na. Mm. man kay sama xol sedd na ba ma ba nga xamee ni xam nga ko rek laa xam ne. dinaa lu mu rafet lu mu rafet rek. indiwaata di leen photo photo bu ñëw 10 000 la sëriñ <laughs> Bab xoolal lii kii dama koy tugg TikTok dama koy xoy. bëri jàmm te bu te làmmiñ bi nag buy ree comme violon. xaqataay xaqataay taatiraa rek. aywa Abdou Sall ñu jooy. Massa. Massa. c'est l'amour. dina jooy nii ba pare ba pare li gën a garaaw yow sa t-shirt bi dafa am feu. est-ce que loolu. feu bi gis nga ko <laughs> ca fo la.